yoo lay waa tey dañoo ñëw teertu si président Macky Sall le président de tous les sénégalais. Thiès tey dañoo génn ndax dañoo kontaan suñu président Macky Sall. ki nga xam ne moo sagal jigéen ñi sagal góor ñi sagal ndaw ñi. tey jii lii nga xam ne mi ngi koy def inauguration bi ba mu yeegee ba tey ci inauguré lañ ko xamee. kenn du la président Macky Sall.